bu dee jeexit yi nag woote am na ay jeexit yu bare bari yoo xam ne yenn yi ci société bi lay dellu yenn yi ci individu yi lay dellu ci doomu aadama yi euh, du ma ko toxtale waaye danaa lim rek lenn ci jeexit yi nga xam ne woote am na ko muy impact am ci kaw bokk na ci ne euh, société bi nga xam ne wootekat yi woote ci njub muy woote ci alxuraan ak sunna dañ faa nekk société bu mel noonu mooy mën a baax waaye su fekkee ne société dafa yàqu te ay wootekat nekku ba société ba du mën a baax loolu kenn ku nekk xam na ko woote bi bokk na ci ay meññ itam ki nga xam ne day woote te jaar ko ci yoon ko bi mu ko war a jaar muy melokaani wootekat ak i yëg-yëgam ak i doxiinam dafa nekk ci moom suñu borom tabaraka wa taala daf koy bindal defal cofeelu doomu adama yi def ak cofeelam ci seen xol loolu suñu borom moo koy def eh, wootekat bi wax naa leen ne borom yërmaande la ci askan wi kon jógul ngir ŋàññi askan wi wala bu di leen xas wala bu di leen saaga ab defarkat la kon jógul di yàq ab tabaxkat la kon jógul di toj kuy defaree ay diggante la kuy dimbali doomu aadama yi la ku leen di jox ay xel la ay conseil di leen laaye biir kon kooku la chaque ne kii xëy ci loolu di ca gont nag te fekk dafa sellal loolay tomb bu am solo bi de yàlla kese tax amul leneen lu mu ciy séentu séentuwul ku ko tagg séentuwul ku ko ca fay suñ ko fayul wari moom loolaay liggéeyam léegi la liggéey ci nit ñi ku la ne man bëggoon na maa toog di daawa bëggoon na maa def naa nga waaye damaa amul raati maanaam daal awma salaire kooku wootewu woote bi ki ko jël gëm ko nekk ci buñ ko joxe salaire buñ ko joxut bu buñ ko fay buñ ko fay buñ koy ne jërëjëf ak buñ ko waxul jërëjëf loolu mooy liggéeyam day woote dafay jot li kàddu yàlla tuyaaba la bëgg yàlla tax muy jëf yooyu day saa bu dajee ci nit ki borom bi tabaraka wa taala mooy def cofeel cofeelu doomu aadama yi la moo koy def ci xoli doomu aadama yi jeexit yooyu bokk na ci moo di ne woote ci yoonu yàlla mooy tax diine mën a continuer njub mën a continuer ñu ngi jëfe alxuraan ak sunna mën a continuer jàkka ji tabaarakallaa li fi def ci ay nit ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu ci alxuraan ak sunna su fekkoon ne jéemuñoo woote ci dara li ñuy wax alxuraan ak sunna di ko jëfe waaye su waxtu julli jote rek ñu ñëw julli rek daal tëj seen jàkk dem bu àjjuma jotee ñu ñëw jàng loo xam ne kenn du ko dégg duñ xam lu mu doon daal di génn dem bu yàggee mbooloo mi fi nekk donte ñu xam sunna lañ donte borom xam-xam ne donte ñu ngi koy dund ak maase ngi ñëw ci kanam ngoo xam ne duutu ñu nekk ci loolu parce que kenn jàngalu leen kenn xamalu leen dañoo gisoon ñii di julli ñu ñëw di julli rek mais jàngaluñ leen dara kon day dem ba mu yàgg kenn du xam ñii la leen boole woon lu moo mooti ndax loolu nekkatu loolu dal na ay kuréeli diine yu bari ci kaw suuf tey yoo xam ne xëy na la ko sosoon xam-xam la woon ak jàngale ak kër këri dugg ak génn ñu dem ba jàngale nag amatu ko faf ñi bokk toog bi kër këri ci yeneen dem ba mu yàgg ñu fàtte ne lii li ko sosoo mooy xam-xam la woon ak jàngale kon ci woote ak jàngale xamal nit ñi ci la lislaam di continuer waaye su fekkee ne loolu amul silsila bi day dem ba mu yàgg mu dagg wala iyaasu billah su boobaa yàlla da leen di jële foofu wuutal ab wooteem bu sell toxal ko yóbbu ko feneen jox ko ñeneen ñu def ko ndax ña ko yenu woon defatuñ ko woote ci alquran ak sunna mooy aar ab société di aar aw askan ci mbugal mu gaaw mu mën a jóge ci sunu borom tabaraka wa taala wàcc ci aw askan wa ma kaana rabbuka li yuhlika alqura bi zulmin wa ahluha muslixuun société bi askan bi seenu tooñ lu mu bari bari borom bi tabaraka wa taala du leen alak li feeg ay doomu adam ngi fi yoo xam ne dañoo baax ba noppi di baaxal maanaam dañuy digle lu baax di tere lu bon dañuy woote ci alquran ak sunna ñooñu yërmaande lañ ci kaw askan wi ba mbugal mu jóge fa suñu borom ku wàcc ci seen kaw kon ñooñu kat ñu mat a amal ci dëkk lañ ñu mat a fonk lañ ñu mat a bàyyi xel lañ ndax aw yiw lañuy indi woote ci alquran ak sunna bokk na ci ay jeex itam moo di yàq gi ni mu baree woote ci alquran ak sunna daf koy wàññi wala daf koy jeexal kuy xool ku nekk xam nga ne yàq bari na yàq bari na ci jikkoy doomu aadama yi boo xoolee mbedd mi tey li ngay gis ci loo xam ne lu wuuteeg la sunu borom bëggoon ci doomu aadama la loola bari na lool boo dégloo wax yi doomu aadama di wax wax ju yàlla bëggul bari na ca lool boo xoolee pom yi ak caaxaan yi bari na lool boo xoolee jubadi gi ci alali jàmbur ci derub jaambur ci askanu jaambur ci lu sa yoon nekkul loola bari na kon jubati bari na ci askan wi dem na ba la nekkoon ci xolub doomu aadama waroon a nekk ci xolub jullit muy bàyyi xel sa boroom ci lépp ba loo moomul sa loxo du ko laal maanaam loo moomul baax loo xamul doo ko wax loo mënul doo ca dugg dem nañ ba melokaan yooyu ñu xaw koo ñàkk dem na ba nit di jàng ba am compétence jàng ba am xam-xam ci doxal wàllu adduna xarañe ko lool nga xam ne war ngaa mën a tabax am réew waaye maandu nga nekku buñ tegee alal sa loxo nga lekk buñ la yóbboo ci ci bérébub liggéeyukaay téléphone ya fa nekk nga xam ne lu jëm ci liggéey baa ko tax a jóg nga jëfandikoo ci sa ittey bopp la fa nekk ci matériel boo xam ne loolaa ko tax a jóg moo xam ay batiir la wala leneen la nga di ko yor ca marché ba di taxawaal wala nga ciy tukki ca sa sa dëkk te fekk oto yi oto yi askan ñoo ko moom kon diine dafay yar nit ci ba lu moomul ba fa lay tudd alal ji nga xam ne dañ laa dénk nga seere ko lu mën a xew ci àdduna ak loo ko jekku jekku yow jullit bi gëm nga ne ki nga xam ne woo nañ ko ba mu gëm alquran ak sunna gëm na ne lii bu ko lekkee moom lekk posen a yem ci moom bal moo yées ci moom sax lekk posen ndax posen bi moom dunduk àdduna gi lay faagaagal waaye lële dunduk àllaaxira ga lay faagaagal kon kooka musiba defaru boobu nag woote ci alquran ak sunna képp moo ko man eh, woote ci alquran ak sunna bokk na ci sabab yi nga xam ne dañoo mën a indi sécurité ci aw askan ndax ñi nga xam ne dañ leen a jàngal alquran ci boppam jàngal leen sunna ñi xam siira yonent bi sallallahu alayhi wa nan la doxale woon xam saxaaba yi nan lañ doon doxale am fiq ci diine xam li jaadu ci diine xam li jaaduwul ràññee li war a am ak li mën a am xam fañ toll ñu dunde noona ñooñu dañu andi fitna ciw askan suñ ko xamee dañu andi fitna ciw askan am naa suñ ko réeree nag nga xam ne luñ wax ci lislaam doon rek jàpp nañ ne moom xàmmeewuñ la war a am ak li mën a am ñu bëgg a jël la war a am lépp bëgg koo def nag tey su boobaa fa la njaaxum di jóge kon jàngale alxuraan ak sunna ci na mu gën a xóote na mu gën a leere kooku moo mën a musal ndaw ñi tey ci ñu yor ay xalaat yoo yu digg doomu la jóg dem liggéey dem tasaare ci sunna jàngal nit ñi ñu génn ci pas-pas yu yàq yi génn ci biddaa yu yàq yi te wattandiku lenn loo xam ne luy yàq sécurité la ci mu réew parce que réew mi yéen yéen a ko moom ki gëm ne moom dafa moom lii ci ñu koy tabax ci la bokk da ko war a jëmale kanam da ko war a defar ñu bari seen xalaat dañoo yaakaar ne daal réew mi moom xëy na gouvernement baa ko moom wala ministère ba wala nangam ci nga bokk yow lépp ci lañ bokk da bokk ci ñi koy tabax kee kenn xam ne day liggéey ci benn biiru boo xam amaana bu ëllëgee mu retraité wala mu dem yow nag lii nga nekk da nga cee nekk parce que yéen nekk ba koy keroog ngay wuj sa borom te kenn du la fekk sa daaw bi wala imaam gii nga doon ne la yow nga léegi bul daawaati kon da nekk ci loo xam ne ci nga bëgg a sax ba keroog ngay sa borom nekk ci réew moo xam ne da nga faa fas yéene dund ba keroog ngay wuy ji sa borom kon da ngaa bëgg réew moomu nekk ci jàmm da bëgg nit ñi fa nekk jub da ngaa bëgg ñëpp ànd di tabax da ngaa bëgg mu bokk ci réew yi gën ci àdduna ay jullitam bokk ci jullit yi gën ci kaw suuf kii jàngale loolu kooku day defar réew mi da koy tabax da koy musal ci lépp loo xam ne xeetu yàq la te loolu doon na loo xam ne mënta moolu yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala moolu woon na ko xeet yu njëkk ya woote ci alquran ak sunna daf ciy musal suñu borom tabaraka wa taala nee na woon luina alladina kafaru min bani israila ala lisani daawuda wa isa bni maryama dalika bima asaw wa kaanu yactaduun kaanu la yatanaahawna an munkarin faaluuhu la bisa ma kaanu yafaluun nee na banu israil dañoo àggoon ci mbon nga àgg ci ñey def lu bon kenn tereetu ko sa moroom lu neex waay def lu neex waay def te kenn waxatul ne lii moo baax wala lii moo baaxul loola ba rëbbuk sunu borom tabaraka wa taala dikkee ñépp la ko boole moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis ñu ko laaj a nuhlaku na saalihun ndax nit ñu baax ñi suñ nekkee ci sunu biir yàlla dana nu alal mu ne ko uhu kay su fekkee ne lu bon tasaaroo na ba àgg ci nit ñi amatuñ naqar ci lu bon kooku bu alkande yàlla ñëwee xam etul kii borom xam-xam laa ndax kii juboon na ci biir këram ak ku baax la woon ak yooyu yëpp xam ko mbugal ma ñëpp a ko yem bu boobaa parce que kenn defut la la war kon jullit bi doyul mu nekk saale mu doon ku baax ci boppam fexe ba bu waxtu julli jotee mu julli du wax lu bon du ko def waaye nag soppiwul dara déedéet kooku responsabilité la kenn ku ne am nga responsabilité boo xam ne boo baaxee ba noppi da ngaa war a baaxal lool tey ñi xam ne suñ boroom tabaraka wa taala amul aw askan du bàyyi kenn bokkul la kenn aw askan moo bind ñëpp moom dong mooy suñu borom tabaraka wa taala kon li nit ñi faral di wax naa nun de sun suuf yi moom jàmm rekk moom yi xew ndax ñu baax a fi nekk bi mel noonu déedéet du noonu borom bi tabaraka wa taala amul kenn ak askan nit ñu baax ñi ci boppam faw ñi jubal ñii ne ci kaw suuf si seen responsabilité faw ñu jóg ci buñ gisee lu baaxul ñu xam ne lii baaxul ku war a wax nga wax ku mbooloo nekk ci sa gannaaw nekk ci dëng nga de leen dëng ngeen jubbantiku leen te bàyyi caaxaan yi ngeen nekk su fekkoon ne eh, fu ku baax nekk su ku baax nekk rek jàmm dong dong moo fay xew kon banu Israël tey maanaam fa la ci kaw suuf suuf soosu ay yonent rek la fees yonent yàlla yi doon lim yépp boo doon jàng anbiyaa bani Israël nga xam ne nangami junni yonent lañ seen bàmmeel yaa nga foofu ñoom ñëpp te tey ñoo ëpp lu ñuy tuur dereti doomu aadama ci kaw suuf tey te xanaa kuy baax nag ab yonent foofu nga mën a kon ñu bañ a woru te xam ne nit ñi li ñuy dund ngir suñu borom tabaraka wa def tawfiq ci réew yi ak seenu kooku ñoo koy defal seen bopp ci kaw suuf ñooy jub ñooy woote ci mbaax ñooy tabax seenum réew suñu borom tabaraka wa taala nag fekk leen ca yàlla ku góorgóorlu nag mu fekk la ca Euh, bi ñuy mujjee moo di ne bokk na ci jeexit yi ne ñu wootee ci alxuraan ak sunna tasaare ko loolu boole jullit yi kàddu jullit yi seen kàddu nekk benn ci loolu la man nekk li ñu tuddee waxdatu sof muy bennoo ci ñi woo nit ñi ci alxuraan ak sunna ñu jàpp ci xam ko dund ko ci loolu dong la mën a nekk waaye lu dul loolu woote jëme ci ak kuréel muy ab xisb wala taaifa wala mbooloo ak nu mbooloo mën a tudde boppam loola doonut loo xam ne luy luy defar la doonut luy boole askanu lislaam lislaam dafa am loo xam ne jullit yépp ñoo ko bokk da leen a war a boole mooy alquran ak sunna fu waay mën a nekk fu nekk war ngaa mën a dégg ñuy wax alquran ak sunna war nga ko nangoo buy si suñ la ca woo ñooñu nag suñ àndee def loolu ba ñëw ci alquran ak sunna di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem loolu moo ñuy jox li ñu tuddee umma maanaam xeetu lislaam la ñu yor bu boobaa boo xam ne wenn xeet la boo xam ne ñoo bokk ni ñuy xalaate ñoo bokk pas-pas ñoo bokk lu ñuy jaamoo yàlla ñooy bokk lu ñuy bëgg ñooy bokk lu ñuy bañ ndaxte li leen di orienté lenn lee muy alxuraan ak sunna waaye bu fekkee ne kat dama ne sama kër baay man jàpp naa ne ñoom ñoo gën a baax ñëpp kon man su may woote ci sama kër baay laay woote ah keneen nekk fe moom itam ne man sama kër baay man itam moo gën a baax ñëpp damay woote jëm ci moom keneen jóg taxaw fële keneen jóg taxaw fële sunu askan daal di doon ay pàcc pàcc fenn bu nekk as kuréel nekk fa kuréel bu nekk yëkkati ab drapeau am ne fii rek la yëf yi nekk kenn ne fu fu dul foofu du dara keneen def noonu keneen def noonu loolu mooy dàqale xeetu lislaam moo leen di néewal doole loolu nañ ko wattandiku am nay forme yu bari mën naa feeñ ci forme ay tarixa mën naa feeñ ci forme ay mboolooy lislaam yoo xam ne ay jamaat la ñu tudde seen bopp wala ay xarakaat mën naa dem ba feeñ ci forme waxuñu ne ab kuréel walla am mbooloo bu mu am ci lislaam waaye mbooloo mi bu mu doon loo xam ne moom la nit ki di topp ba mën a bàyyi moroomi jullitam yi li leen boole ak fu ñu mën a nekk ginnaaw alxuraan ak sunna la loolu nañ ko dund yëg ne fépp fu nit mën a nekk di dund alquran ak sunna kooka ci yow la bokk moo xam ak lu mën a tudde mbooloo na ko jox tur wu ko soob yéen bokk lu ngeen nekk yéen a bokk lu ngeen gëm yéen a bokk di dund te bu kenn mën a dox nag sa diggante ak moom ci jëflante yàlla na sunu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiq eh, sàmm ñu ba ñu man a taxaw ci woote jëme ci alquran ak sunna te wërsëgale nu mu sellal jëf jooju euh, te sax ci ba keroog nuy wuy ci sunu borom tabaraka wa taala li del siwaat di sant mbokk yi ci organisation bu rafet bi ak déglu gi euh, bu baax a baax di ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp lu ci nekk ci njariñ yàlla na nanu ko sunu borom tabaraka wa taala boole ak tuyaaba lépp loo xam ne nekk na ci njiwte mu jéggal na ko wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa wa ashabihi ajmain طيب الحمد لله الحمد لله ñun ñëpp ñoo dégguloo conférence bi conférence bu ku déglu incha allah ñetti taxawaay yi nga ne tànn mooy daawa dem leeral sunna leeral na ko bu baax naka noonu fadlu daawa naka noonu asaaru leer na yëpp insha allah léegi ngir biir bu question yi question yi képp ku bugg a laaj da ngay bind sa laaj nga indi ko insha di ko gërëm bu tey ñu joxe na ko bi yéen ñëpp seede ngeen ko alhamdulilah ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla subhanahu wa taala yàggal taxawaayam saxal ko insha allah saxal lan ñu képp ku dugg laaj rek da ngay bind sa laaj ngay indi ko insha allah daaw bi ni muy doxee itam dafa yëg buñ buñ bëggee maanaam suñu daaw ci wàllu jàngale conférence ak xutba te yooyu ñëpp ak ñu ko def da cee motu te ci yooyu ñu ci dara soo dee ñu ci ndax ñoom gisoo dañoo war a soppi dox ci wàllu daaw jénn yenn yoon yoo xam ni ñoo gën a gaaw ngir mën a soppi nga xam ni mooy mën a nga xam ni jëm gannaaw ak yemale suñu daaw rek ci jàngale xutba ak def ay conférence te lii moom ñu ngi leen di moom benn situation sax mu ne wax bi demee noonu tontu ban tontu mooy tontu bu yàlla moo xam loolu ñu doon ñu ngi yokk beneen beneen beneen mu ni ndax dana yem ci biir woote jëmale ci alquran sunna mais rawatina bu leen amee place ci woote bi muy woote ñu ngi dem di teewee ay jataay ay munasaraat yoo xam ne ñoom ñu ko jël munasaraat bi ay ay ay ay xew yoo xam ne xew bi daal ñu koy dugg ci te moom la yem mooy dafay dem ngir am borom borom bu taxawee ak ma delloo ma delloo maanaam nga fekkee nga daga fekkee nga daga war na am daga beneen yow nit ñi wax sa nekk bi lan la ñu mën a génne ci diine ak tànn moo ko sañ wax ni moom génn ci diine te li may wax nii en même temps dañuy gis ne wax da ngaa boole man amul mbir ma wax wala ñu ay ñoom daal ci biir daal amul daal dina xam ne man amul mbir ma wax wala ñu ay ñoom daal dafa yegg mbir boppam daa am yegg mbir boppam wala ñu naan benn boobu bu jàllee insha allah ñu euh, jëlaat leneen lu toll noonu insha allah ba waxtu jeex ñii wax ne woote ci wàllu jàng ak jàngale ak jëfandikoo mooy jumaa ak conférence ak lu mel noonu dafa yeex ñi war a sóobu yoon woo xam ne yoon wu gaaw la ñooñu mu ne nan lañ leen di tontoo euh, alhamdulilah ginnaaw yëg na ne dañ leen war a tontu kon xam na ne loolu ñu wax doonut lu dëgër euh, yàkkamti yàq la jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am lu munu jàngal ci wàllu daawa xam nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ ne ko wa anzalna ilayka dikra li tubayina linnaasi ma nuzila ilayhim dañoo wàcce ci yow alquran ngir nga leeralal nit ñi alquran bi ba xam lu mu doon yonent boobu dafa leeral lépp daawa ci boppam dafa bokk ci yim gën a leeral gën koo dund ci kanam nit ñi ñu teg ci seen bët mu doxale ko ci anam yoo xam ne yu doy waar yoo xam ne ku ko jàngul doo ko mën a xam moo tax jàng siira doon loo xam ne lu am solo la ci képp koo xam ne danga nekk ci biir ci woote alquran ak sunna ñu mel ne ñiy wax li amoon na xalaat yu ko jege ci jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne ñu ngi nekk màkka lor gi bari lool ci jullit yi bari lool xeetu lor wu ne ñu leen koy lor yab la nañu dem gàddaay dellusiwaat def na lu ne lor ji continué moom ci boppam lor ji dal ci kawam génn na dem taayif la ko dal xam ngeen ko nekk na màkka lor yi di dal ci kawam buy julli ña ngi koy lor bu génnee di dox ñi ngi koy lor ngi koy lor ci wax ak ci jëf benn bis dafa sóobu ci kaaba gi saxaaba yi ñëw àndoon fekk mu suunu lem kaalaam somp ci mbaggam suunu ci kaaba gi ñu ñëw ne ko ah yow yonentu yàlla bi ñaan ndimbal day jot na ala tastansiru lana nun de danoo bëggoon nga ñaan yàlla mu wàcce nasr maanaam nu gañe sunu noonu yii ñooñu yëg nañ li ñu def yëg mbir mi yeex yàgg na dëgg la mu ngi daarul arqam ibn abil arqam mi ngi jàngale mi ngi dugg ak a génn mi ngi waaraate fu mu dégg mbooloo dem na fa waaye ñooñu yëg nañ mbir mi dafa yeex te lor ji bari na biñ ko waxee loolu mu daal di jóg di ju ne leen xam leen ne ña leen jiitu woon day amoon na ci ay yonent yoo xam ne yàlla da leen a yebaloon fii ñuy woote bi ñuy woo seenu nit ci tawxiid seeni nit dañoo jóg jël am riis am si la ministre ba di yor teg ko ci seen bopp di ko xar di ko xar ba def leen yu nekk ñaari xaaj te loolu delloowu leen gannaaw taxul ñu saalit ci seen tawxiid bañ doon woote daal dina waat naa ci yàlla bis a ngi ñëw boo xam ne danañ dem ba mbir mi dal nit dana jóge xadra mawt ba sanaa diggante bu sori di fa dox ànd aku juram ak alalam du ragal kenn ku ko lor walla ku jalgati ci kawam ci alalam walla euh, ab deram wala bakkanam lu dul xanaa ak till boo goo xam ne daa dal ci kaw ak juróom waaye nit luut ko lor bu boobaa maanaam waxtoo ngi ñëw woo xam ne danañ dem ba lislaam tasaaroo te lislaam comme tasaaroo sécurité dana fa tasaaroo comme safaanub li ñu bari nag bëgg a yëgloo nit ñi tey muy lislaam fu mu nekk sécurité waratu faa nekk déedéet loolu safaan ba moo am lislaam fu mu am jàmm doo nga moo fay am léegi lam daaneele mooy li ñu itteel mu ne leen bis booba ngi ñëw walakinakum qawmun waaye yéen ñii da ngeen a yàkkamti da ngeen a yàkkamti loolu mu leen doon wax ci dundam alayhi salaatu wasalaam wala diir bu gàtt ci gannaaw ak dundam teg nañ ci seen bët ak yeneen yu mu leen doon wax yu baree bare yoo xam ne yonente bi alayhi na ko teg kon ki lay wax ne jàngal jàngale xutba conférence woote fi sabilillah xaafil daaw yi lépp lu jëm ci programme yi daaw mu loolu dafa yeex lu tax dafa yeex ban nattukaay nga yor ba ne yeex na mu ne ndax lu bon li mu ngi fi ba léegi kooku moo jëkk di aw lay woo xam ne wu doye di la kii woote te lii muy bëgg a wax war nañ koo dégg bokkul ci objectif am ne lu bon na dem ba duutu am ci kaw suuf loolu taxu ko jug kii woote néewul sama sos ci kaw suuf mooy lu bon bu mu amati waaye lu baax na bari lu ma mën a wàññi ci lu mën naa ko wàññi waaye lu mu mën a def dana ko fi bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di moo dàq daawa ñëpp wala déet moo gën a xam ñëpp ni ñu daawaa moo gën a xam yoon wa gën a baax moo gën a xam yoon moo gën a jub bi mu wootee ba dafa jógee bàyyiwu ko ay yéefar ok kéefar gaa ngi fi alayhi salaatu wasalaam bi mu fiy jóge mooy yàlla gaa ngi fi bi mu fiy jóge alayhi salaatu wasalaam kon bul def sa objectif mukk ne lu bon daf fee war a jóge mënu fee jóge borom bi tabaraka wa taala moo dogal ba keroog àdduna bi tukki ñaari kuréel ñoo fi nekk kuréelu ñu baax ñi fariqun fil jannati wa fariqun fi sair ñaar ñooñu dañuy ànd ñu di la nattoo benn bi soo nee lii baax na keneen daa war a taxaw ne la loolu baaxut soo nee fii jub na keneen daa war a taxaw ne la foofu jubut soo doxee jëm keneen daa war a galgal taxaw sa kanam ne la doo mën a jàll loolu soo amut yëf yi day yomb ba ëpp maanaam day neex su fekkee jullit yi kaw suuf ñëpp mujj nañ nekk jullit ànd di dox fenn kon yow amatuñ luy lay nattoo ba xam sa ngëm dëgër na wala dëgëru kon ñaari kurél yooyu dañ fee war a nekk di dem ci wii kon ki lay wax ne yeexaay bi fi ma ko nattee mooy société ba léegi yàq gaa ngi yàq ji moom dana fi nekk waaye nag góor góorlu ca loola loo ci mën a soppi nga soppi ko léegi nag ni ñu koy soppee lan mooy gaawaay bi ki lay wax ne dama bëgg yoon wu gën a gaaw ñaari yoon képp la lay la lay wax ci li ma xam ci li nekk ci kaw suuf tey ci mbootaay yi nga xam ne dañuy woote ci lislaam am na koo xam ne dalay wax ne nañ sóobu ci yoonu politique bi créer parti doon ay jullit suñ demee ba àgg ci pouvoir bi soppi askan wi ñu doon ay jullit loolu nag théorie la boo xam ne man tegaguma ci sama bët ba nit ñi dalee politique ci biir lislaam ba léegi gisaguma ñoo xam ne ci anam googu lañ jaare kare di di di parti di di di di wate bañ na léegi islamiste yi àgg nañ ca kaw àtte nañ réew ma teg nañ ko ci saraat bu mu sàq ñëpp jub nañ kon loolu man damaa gëm ba léegi ne ci xel yi la nekk waaye ci réalité moom kenn ci sa bët ma nag politique dafa araam waaye loolu moom gisuma ne mooy yoonu daawa mukk gisuma ne mooy yoonu daawa su doon loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam biñ ñëwee ci màkka ne ko kàngami Quraysh ñoo àndandoo ñëw ne ko yow kat yaa ngi nuy bëgg a jaaxal bu fekkee da bëgg alal ñu dajale alal jox la ba nga doyal bu dee da bëgg ay soxna giiri Quraysh yaa ngi ni jigéen ñi tànnal ñu la neex ñu jox la ci ñu nga bëgg bu dee da ngaa bëgg nguur itam ñu waxtaan ak Banu Haashim ak suñu mbokk yépp ñu fal la na nga doon buur kon su fekkoon ne day xalaate ni ñoo ñuy xalaat mooy ah man di suñ ma falee buur ma yor sama arme yor sama yëpp mën na maa koy forcé ñëpp ñu doon ay jullit waaye déedéet waxut loolu dana mukk xalaatuma ko buñ tegoon jant bi ci sama loxo bi teg weer wi ci loxo bi ngi ñu bëgg ma force ci ma bàyyi lii ma nekk du ma ko bàyyi tey soxlawuma nguur kon leneen la lu bokkul ak ngóor mooy defar doomu aadama yi defar seeni xol ñu jub loolu daawa moo ko mën ak jàngale yàlla xam na ne boo taxawaloon fii tey pouvoir nga ne damaa bëgg a àtte nit ñi nii ñu mel tey ci lislaam da nga rey ba tàyyi da nga dagg ay loxo ba tàyyi waaye nit ña dañ leen di yar jàngal leen seeni xol defaru ñi door a doon lañ doon waaye mën na ci leen cee forcé moo tax leen borom xam-xam yi dañoo firi laa ikraha fi diin ni ñu koy firi mooy kenn mënta forcé kenn ci diine ki ko gëmul mën na la wan ci kaw ne la d'accord naa ci mais ci biir dara newu fa bis booy gëm ñuy def la nga bañ te nit jullit bi bëggee ko noonu bëgguñu koo xam ne soo gëmmee mu def li ngay bañ dañoo bëgg koo xam ne bu wéetee ca biir tëj buntee kenn nekku fa lañ ko doon tere du ko def kooku benn kuréel la ci ñi nga xam ne dañoo wax ne dañoo yàkkam ci beneen bi mooy ñi nga xam ne dañ ne mbir mi mbon gi fi mu àgg pour mu baax faaw ñu yanu ay ngànnaay nag dal ci kaw nit ñi boobu moom mooy bi ci gën a ñàkk solo moom kooku moom loram dafa yëmatul ci boppam waaye lor an askanu lislaam lay def lor wootekati lislaam ci boppam lay def kenn ku nekk tëj na suba ci li xew ci kaw suuf tey noonu lislaam ci boppam sax dama jàpp ne loolu moom dañoo bëgg mu am ndax su amee ci la ñuy mën a tuumaale jullit yi ci lañ kuñ bëgg a lor ci lañ lay lor kuñ bëgg a yàqal ci lañ lay yàqal kon danoo gëm ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam yoon wi mu jaaroon fukki at ñett mu nekk ko ci màkk di woote xelam xalaatul lu ñu naan taxawal état wala lenn lu ko nuru tabax nit ñi ba seeni pas-pas wér julli door a wàcc ñu wàcce ci ñoom julli fukki at ak ñett yooyu yépp kenn farataalut ci ñoom koor kenn bàyyiloowu leen sàngara kenn farataalu ci ñoom aj bañ gàddaay ba dem Madina yeneen farata yi door a tàmbali di wàcc ndànk ndànk di wàcc ndànk ndànk bañ àgg ci doon ay bi tabaraka wa taala ne leen rek kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas booba la état door a mën a taxaw yonente bi alayhi salaatu jaar ci yoon woo xam ne waxuma ne day lu bon la tax a jóg wala da yéene yéene ju waaye sag yàq mooy ëpp la ngay defar teew euh, ñaareelu laaj bi mooy xew-xew yi nga xam ne day xew ñi koy askane diine te diine xamu ko maanaam xew-xew bi daal lañ ko mën a tudde ndax kii woote mën naa ñëw teewe ko ngir ne day woote ci alxuraan ak sunna loolu day mel ni li ma weesu woon léegi théorie la boo xam ne amul pratique man de gisaguma ñi nga xam ne nee nañ dañoo nekk ci alxuraan ak sunna ñuy teewe tee jataay yooyu ñu teew fa mbooloo ma wër leen ñu jox leen parole ñuy woote ci alxuraan ak sunna déggaguma ko déggaguma kenn ku mën a taxaw ci seen biir wan leen ne loola bi xel xalaatu te su ko defoo it loola du doon xikma lu jaaduwut lay doon kon jàpp naa ne nit ñi ay xaaj lañ ci teewe béréb yu mel noonu am na koo xam ne jaay ak jënd moo ko fa yóbbu dara nekku ci am na koo xam ne seeti ay bokkam moo ko fa indi dara nekku ci waaye ki nga xam ne nag day woote bañ xam ko ci daawa bi nag na wattandiku kii woote ba ñu xam ko ci daawa bi fu mu teew ku ne dafa nañ ne loola lu lislaam d'accord la moo xam jël na parole moo xam jëlul parole waaye jëm jaay ngi toog ci biir mbooloo mi dañ naan diw am na ñoo xam ne dañ naan diw sàngam mii bu lii baaxul woon bu jubul woon moom du fa toog kon kooka mi ngi lor yeneen i doomu aadama yoo xam ne mu nga yàq seen i pas-pas ma nga yàq seen diine te yëgu ko kon loolu moo tax ab lu mel noonu dañ ko war a wattali kañ la ñuy àtte jullit ci ne moom génn na diine tomb bu rëy la atte ab jullit ci ne dafa génn diine maanaam dafa tubbi wala takfiir ko génne ko ci lislaam loolu sharia moo koy def waaye nit du ko def maanaam atteb sunu borom tabaraka wa taala xam-xam moo koy def borom pouvoir moo ko sañ a def su doon lislaamee atte tey askan wii di dox ci kaw suuf kenn sañu te dem yàgg nga ne diw ab yéefar la wala diw dafa tubbi li nga sañ kay mooy gis nga ci moom loo xam ne jaaxal na la muy wax muy jëf nga ñëw ca attekat bay attewoo lislaam ne ku man kat diw sàngam dégg naa mu wax wax joo xam ne nuru na ak génn diine woo leen ko ngeen xool su boobaa attekat ba moo koy woo def ay enquête am la mu wax lu tax mu wax ko lii lu tax bu fekkee wóor na ne li muy wax kéefër la te nuur na ca su boobaa maa ngi koy wax mbokk yi bëkk démb dañuy suuboo moom yoon wañu suuboo woon ak euh, Mansuur al Xallaaj bi mu toogee ba mu yàgg muy wax ne moom mooy yàlla bañ ko yóbboo ci àttekat ba dañ koo njëkk a yebal ci ay fajkat ñu ne nañ ko xool ba xam ànd naa ko xelam déet biñ ko xoolee ñu ne ànd ko xelam ñu ne nañ ko yóbbu ca borom xam ya ñi mu noosara ak moom jox ko xujja maanaam jàngal ko ba mu xam ne li muy wax baaxul ñu yóbbu ko ci borom xam-xam yi ñu am moom ñetti fan di ko waar mu të ba loola jàllee nag dañu xam ne kii kon kéefër la ñu daal di koy àtte ca loolu doon koo rey li tax àtte takfiir euh, dafa doon lu diis ci aw askan moo di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kàddu kéefërloo su xasee génn moom du dellu benn kii nga ne ab yéefar la li nga wax doon dëgg wala yow nga jël kàddu kooku yow bu xasee génn benn mu dal ci kaw wala mu dal ci sa kaw kon kooku musiba la mat a ñaareel ba mooy ku ñu ne ak yéefar la dafa am yeneen i àtte yu cay tegu la ca war a sës mooy ci ji lislaam la nekkoon tubbi na kooku rey ko moo ca sës dañ ko war a rey waliyaasu billah te buñ ko reyee du donnanteeg mbokkam ya doon ay jullit ay jabaram dañ koy tas door koo rey ndax duñ ko téye kon ay àtte yu rëy la yoo xam ne ahlu sunna wal jamaa dañuy wattandikuloo nit ki mu yéefarloo doomu aadama ci na téye làmmiñam dañ lay wax ne ci régal bu am solo mooy nga def njuumte yow ci nit kii nga jàpp ne jullit la fekk du jullit jàpp nga ne ab jullit la fekk du jullit njuumte loolu moo gën a woyof nga def beneen njuumte mooy kii doon ab jullit nga jàppe ko ab yéefar maanaam ñaari njuumte la yéefar waaye yow dangaa ngaa jàpp ne jullit la juum nga de waaye njuumte loolu moo tax moo tax ne bu doon ab jullit nga jàppe ko ab kon takfirul muslim alxatau fi takfir almuslimi axtaru wala nga ne alxatau fi ictibaar alkaafiri musliman ahwanu min alxatai fi takfir almuslim kon takfir ab atte la boo xam ne dañ ko bàyyi ci loxo loxoy attekat yi lislaam da ko bàyyi ci loxoy boroom xam-xam yi mag yi nga xam ne ñoo ko sañ bu loolu lépp jàllee bu door a am ay charte nag am yoo xam ne ay mawaaneex lañ ko tudde mooy ay gàllankoor yoo xam ne nit ki mën naa tàbbi ci kéefar sax te fekk du kéefar bokk na ci yi mooy bu dee dafa réer maanaam dafa war a xam ne lii muy wax moom kiifar la daa war a ànd akum xelam kenn waru ko caa forcé ak yëgam kattanam yëppam dafa war a daje mu xam ne lii kéefar la ba noppi mu def ko gàllankoor yi nga xam ne dana tee ñu kéefarloo nit mooy suñ ko forcé wax loo ko kéefar wala ñu def loo ko bu ko du yéefar su fekkee ne dafa juum doon na wax ci làmmiñam far wax loo xam ne kéefar la loolu du tax mu doon ab yéefar moo tax dañ lay wax ne tàbbi ci kéefar taxul kéefar tàbbi ci sa kaw nit ki dana wax kéefar wala mu def ko te fekk kéefar tàbbiwul ci kawam maanaam doonutub yéefar loolu moo tax ñiy jàng lenn ci téere ahlu sunna yi ñu bind ci buntu sunna ak bidaa ci buntu kéefar ak njullit li ñuy tuddee al asma wal ahkam rawatina lu mel ne kitaabu sunna nga xam ne al imaam al barbahari moo ko bind téere yu mel noonu di su ko fortaat gone bu ko liir da nga génn gàddu saw yet ci kaw nit ñi fekk la ngay jàng da nga koo déggut borom xam-xam yi dañuy wax ñu ne nangam day kéefar la nangam day kéefar la nangam day kéefar la yow miy jàng loolu nag dégg ñu ne kéefar la boo génnee gis ku koy def looy daal di wax mooy ceeb yéefar la parce que imaam sàngam nee na woon li la fekk imaam la muy wax du loola loolu lañu ñuy tuddee ak takfirul mutlaq ak takfirul muayyan takfirul mutlaq mooy jëf jii day kéefar la wax jii day kéefar la waaye nag diw sàngam wax na ko ak diw sàngam jëfee na ko kooku beneen étape la kooku dañ koy indi jaar ak moom fii ma la wax suñ fa jaar ak moom ba noppi nag ñu door koo àtte àtte boobu waaye du caagi ne ku ca tàbbi ku ne rek dal ngay tàbbi mu jeex comme na ko xawaari ji di waxe ne eh, mooy yàlla goo yëg ak goo yëgut ku mën a doon ku mooy yàlla rek tàbbi nga tàbbi nga ci kéefar ba àgg ci seenu xóotal ci ni ma ko doon waxee mbokk yi bëgg dee ba nee nañ àgg nañ ci ne kii eh, doxu sàngara bu tàbbi woon ci teen bi ki ñëw root ca naan ca génn na lislaam fa ci kon loolu ak jéggi dayo la koo xam ne lislaam jàngalewul loolu ndax eh, digle lu baax ak tere lu bon moom daawa lu ci nekk daa doon lenn wala ñoom euh, dañoo ànd mu kay ñoo ànd maanaam mënee suta daawa te doo digle lu baax di tere lu bon al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ponk la ci ponki daawa yi waaye comme ni ma ko waxee moo gën a yaatu moo gën a yaatu mooy ki am xam-xam ak ki amul xam-xam li nga xam lu mu tuuti tuuti sañ nga caa digle lu baax di ca tere lu bon bu dee daawa ca dem gën a xóote a daawatu taxasusiya kooku ka nekk mutaxasis mooy wal takun minkum ummatun yad'una ila alxayr mooy falawla nafara min kulli firqatin minhum taifatun liyatafaqahu fi ddin wa liyundiru qawmahum ida rajau ilayhim laallahum yaxdarun loolu ñi nga xam ne ay mutaxasisuun lañ ay spécialiste lañ ci daawa ñooñu mën nañoo boole al amru bil maaruf dañuy boole di digle lu baax di tere lu bon waaye di daawa nag ci asaalib yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo xàmmee ne kañ la ñuy jëfandikoo al mawid maw'izatul xasana xam nañ kañ lañ jëfandikoo al mujaadala billati hi ahsan loolu spécialiste moo koy xam kon daawa ak euh, digle lu baax ak tere lu bon ñoo ànd ponk la koo xam ne dafa nekk ci biiram am ñu ko mën a jëfandikoo boole ko ak daawa ca nam gën a yaatoo am ñoo xam ne ci digle lu baax ak tere lu bon ci lañ mën a yem am ñoo xam ne mën nañoo boole lépp euh, bayaan bi ñuy def par ajjuma kooku wax bi ma ci wax rek moom lay faral bi baam moo di euh, comme ni ma koy waxee nag ijtihaad la ijtihaad la boo xam ne mën naa doon njuumte mën naa doon it noonu allahu alam sun jàkka yi ñaari xeeti jàkka la am na jàkka yoo xam ne ña fay teew dañuy xutba xutba boo xam ne nit ña dañ koy xam ku fa teew julli si da dégg imaam ji mu wax loo xam nga yóbbaale ko am jàkka joo xam ne ka fay teew xamut lu imaam wax lu tax xamu ko mooy waxut lu kenn xam benn arab kese la làkk wala leneen la wax ndax léeg-léeg am ñuy jàng xutbab arab bi jàngee ko noo xam ne bu bu noppee doo xam ndax arab la doo wax wala leneen am na ñoo xam ne it ak arab lañ koy wax leer waaye firiwuñ nag xam nga ci fekk public bu toog boo xam ne dégguñu dara ci ci ci li ngay làkk nga ñëw taxaw ci seen biir làkk ba mu neex la nga daal di wàcc julli kenn du wax ne xutba woo de waaye nag xutba woo lu nit ñi xam jàkka ji nga xam ne nit a nga koo xam ne yàlla xamal na ko dara ci xam-xam imaam ja na ko ne xutba wul xutba bu doomu aadama yi xam te jàkka jooju may nañ ko balaa imaam jee ñëw mu war a wax nit mu mën a wax nit ñi ñu mën a dégg ndaxte léegi mën koo yóbbaale jàpp naa ne foofu rux sab bayaan war na faa mën a am ci wàllu ijtihaad jàkka ji nga xam ne nag imaam ji day xutba nam war a xutba dolliwaat fa nag beneenub xutba kooku moom jàpp naa ne dolli dara ci diine ji lay doon kooku moom jàpp naa ne des ko war a wattandiku fii ñuy xutba imaam bi jël taam xutba nit ñi wax leen loo xam ne lu mën a jëriñ luñ mën a jëriñoo la foofa li ñuy laabire suñ bokk yi mooy ku ca doon def bayaan arrêté ko parce que dool li dara ci marasimul juma lay doon te kat bu dul biddaa yi ñu xam ne biddaa noonu lay sosoo lu amul woon ñu jékki-jékki indi ko muy dem di dem di dem ba mu yàgg ma lële nag day occasion boo xam ne inqaadu maa yumkinu inqaaduhu la béréb la boo xam ne julli gi jóge nañ ca seen i kër ànd jëm ci jàkka di feex feexal ngéejoo woon a doon wax ne bëggoon nañoo am dara lu ñu yóbbaale lu ñu mën a waar nu yóbbaale suñ diine ci sunu liggéey ci sunu situation ñu nar a toog loxo kese ba nar a dem am jaay yàlla bu jóg dikk taxaw foofa uh, waare fa loo xam ne nit ñoo danañ ko mën a jariñoo balaa imaam jaa ñëw defe naa ne loolu su mënee am jàpp ma ne luy wàññi dara la in nazunnu illa zannan wa ma nahnu bi mustayqinin alhamdulilah ki nga koy wax moom dafa am xarit boo xam ne dañuy jël alquran yi ñu ci la bokk. alquran yi ñu. alquran yi ñu. ñoom ñoo nga xam ne ñu am ko parce que. man dañ ko ci laajee doomu suuf doomu xadis ngeen ne xadis am nañ taxi am na yére yu yóbbu kon jëlee ci boobu day ko alquran wala bu lay ban yoon dañu jaaw moom wala taawoo moom kii ñoom jafe bi am moo di ñu suuf fekk ñaari waajuram lépp lu ñu def ci suuf ak di ko dund suñ xoolaatee mu nekk ci wax yàlla yàlla dañu naan ko sa liggéey bi moo ëpp xam-xam te li ngay wax bokk ko ñu ngay jéem a dund ak ñu ngay jéem a màggal mu ne loolu daal mooy problème bu rëy boo xam ne dara ko mënu koo paas ñun ci laaj ci ndimbal kon yéen la transformation maanaam am xam ñu ne maa ngi ñaar wala ñu mën leen a tontu baat ñu mën a. kii moom dafay wax ne kan mooy ñi ñu ñaar man man tamit am ak ñi ñu ñaar dëgg mooy am. kii mooy moom dafa jàng ba am diplôme te li mu spécialisé woon ci liggéey dafa jëm ci wàllu banque te nag mu ni xam na ci banque bi dafa am diplôme te nee na moom doomu ma saa kaw mais man nga liggéey ci ñoom rek mu liggéey ci banque yi te daal ñu ngi laaj loolu moom loolu la ak jigéen ñi ci ci ngir ànd ak ñu ñu suuf lu gudd rek mën nañu masafaan wala xayma wala chafi wala masam wala ñi nga xam ne dañoo askane seen bopp ci alxuraan ba noppi wax ne duñ jëfe sunna ab kuréel la boo xam ne euh, mi ngi feeñoon ci seekal bale weesu Inde lañ jóge woon ku ñuy wax Ahmad xaan moo ko sosoon euh, donte nag amoon nañ ñu jiitu waaye pour mu nekk ab kuréel ab mbooloo ab association ci jamono yooyu ci la tàmbali nga xam ne dañoo tàmbali bind ci ay téere pour wane ne sunna mënees su ko jëfee ngir nangam ak nangam ak nangam ak nangam mbokk mi laaj quraan yoon yooyu nan lañu leen di tontoo la chaque ne borom xam-xam yi bind nañu ay téere yu bari yoo xam ne tontu ñooñu moo ko tax a jóg pour wane ne sunna ci boppam xujja la maanaam dañ koy dañ ciy sukkandiku comme ni ñuy sukkandikoo ci alquran ñooñu euh, ci kuréel yi gën a réer kaw suuf ci lañ bokk kuréel yi gën a bari ay contradiction ci lañ bokk itam ndax ki lay wax ne alxuraan dong lay jëfandikoo waaye sunna moom duma ko laal fenn question bi nga koy jëkk a mooy nooy jullee alxuraan li ci nekk mooy wa aqimu salaa taxawal leen julli yan julli ñooy farata ci bis bi sunnaanu ko wax julli ku ci nekk ñaata rakkaa la am sunnaanu ko wax rukkoo mooy lan sax niñ koy defee sunnaanu ko wax sujjóot niñ koy defee loolu sunnaanu ko wax yooyu yépp sunna moo ko indi ñu door a xam li yàlla doon digle lu mu doon su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam leeralul woon loolu ñu ne nu julli leen rek kon tey kenn ku nekk da ngay xalaat rek noo jàpp ne noonu la julli mel nga def bi yonente bi alayhi salatu wasalam dikkee jàngale ko nag ci sunnaam ci lañ xam yooyu yëpp kon ñi nga xam ne pas-pas boobu lañ yor jàpp ne sunna dara ci ñooñu moom waruñoo mën a julli loolu moo tax ñi leen xam dëgg te dund ak ñoom nee nañ li ëpp ci ñoom nañ leen xame mooy duñ julli ñu dem ci ñoom ba sori julleetuñ ndax dañoo dem ba wóolootuñ dara loo xam ne lu nekk ci gi la te xamuñu nuñ koy def te loolu yamut ci julli ndax jaamu yàlla yi ci des it xamuñu nuñ koy defe su sunna ñëwul woon nooy woore doo ko xam kañ ngay jàpp kañ ngay dog lan lañ lay tere yooyu yëpp sunna moo ñu ko leeral bu dee aj noonu xudu anni manasikakum bu dee yeneen jaamu yàlla yi jikko yéeg pas-pas yéeg lépp ci détail yu sunna ci lañ ko mën a xam loolu moo tax euh, al imam ad daarimi ci sunanu bi def na bunt boo xam ne daf ne baabun as sunnatu xaakimatun ala al quran nee na sunna ci boppam mooy àtte alquran mu firee ko ne ñoom ñaar ñëpp lenn lu ci ne ci yàlla la jóge muy alquran ak sunna ndax borom bi tabaraka wa taala moo wax ne wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahakum anhu mu ne ñaar ñëpp ci yàlla lañ jóge waaye ni alquran aajowoo sunna ni sun moo ëpp ni sunna aajowoo alquran maanaam ci wàllu leeral ko alquran nim soxlaa sunna saraa ko ngir ñu mën koo dégg sunna soxlaawul noonu alxuraan ngir ñu saraa ko ngir mu mën koo dégg defe naa wax ju leer naa ñu ju ma ne sa dégg la bi ñu ne def leen julli dikku nu ci alxuraan mu leeral lanu nu ñuy jullee waaye dañoo dem ci sunna mu leeral lanu jaamu yàlla yépp noonu la pas-pas yépp noonu la kon sunnatu xaakimatun wala qaadiyatun sax la jëfandikoo alal quraan ñooñu am na xadis bi ñuy sukkandiku boo xam ne nee na ñooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne su fekkee ne ab xadis ñëw na ñoom ab xadis la boo xam ne nee nañ ñoom ñii ni ci alxuraan la ñu sukkandiku nee nañ yonent bi moo ne su alxuraan ñëwee eh, su ab ñi askane ma ko gaaral leen ko ci alxuraan su ngeen fekkee mu dëppoog alxuraan xam leen ne maa ko wax su ngeen fekkee mu juyoog alxuraan xam leen ne waxuma ko ñoom xadis boobu mooy seen mooy seen sukkandikukaay ñooñu li ñu leen di jëkk wax mooy lu seen yoon ci xadis yéen da ngeen alxuraan rek ci ngeen di yem lu tax ngeen di jëlub xadis nag di ci tegtal beneen bi des mooy xadis boobu ci boppam suñ ko jëloon def ci li ngeen wax kon kenn bu ko jëfe mooy suñ ko jëloon moom gaaral ko ci alxuraan ba xam ndax dana dëppoog li yonente bi wax wala déet jël nañ xadis boobu gaaral ko ci alquran ndax alquran dafa wax ne su yonente bi waxee gaaral leen ko ci alquran wala alquran dane wa ma ataakum rasulu fa xudoohu alquran nee na wa ma lu leen yonente bi di jël leen kon xadis bi ci boppam day rey boppam li ñu tuddee alxujjatul munqaliba manaatiqa yi di ko jëfandikoo lay woo xam ne dafa këpp kenn mënatu koo jariñoo kon loolu moo dal lay woowu ci boppam ndax dafa rey boppam ndax moom ci boppam li xadis bi di wax su doonu xadis suñ ko jëfandikoo moom la ñuy jëkk a tey fardu xadis sax nag far nekkut ci Euh, benn téere boo xam ne am na ca ab isnaat boo xam ne buñ mën a buñ mën a sukkandiku la kon daal loolu am ngir la moo xam ne ngirum lu réer ñu réer lañ waaye nag alhamdulilah ñu wàññiku lañ lool ci alaalamul islaami donte ñi ngi amati ba léegi sax ci ñàkkul ay benn benn yoo xam ne loola la ñuy wéyee ba léegi waaye nag néew na lool dajeeg ab jullit ci jamono ji ñu toll ak ni moyens yi toll muy gëm ngëm-ngëm bu mel noonu di wax na ci alxuraan képp la ñuy jàpp bàyyi sunna euh, ki nga xam ne day góorgóorlu ci sunna ba noppi Euh, ay bokkam nanguwuñ koo déglu ndax dañ koy wax ne ko sunu jaay moo la xam-xam te jëfewul lu mel ne lii ngay jëfe li ñuy laabiire laabiire bu njëkk bi ci ci ndaw ñi lañ koy jëmale moo di yow mi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf laa baaxee euh, ngay jàng ba xàmmi Euh, dem ba àgg foo xam ne xëy na ñi ngay dundal yaa leen raw te fekk ñoo la ëpp ay at fuuf amaana sa bàyyee nga ca amaana sax sa maama nga ca di dund nga bëgg ñëw di dund li nga jàng ci seen biir faw mu ànd ak rafet rafet gi mooy lan mooy teggiin ya ak jëflante ga ak ñoom ak anam ya ngay waxe ak ñoom ak anam ya ngay jotlee la nga xam jikko yu rafet yooyu ak jëfin yooyu ci lañ lay nangoo ci la ñuy mën a déggee ci yow li ngay wax kon faaw ñu jàng teggin yi suñuy jàng xam-xam bi nañu jàngaale teggin nañu jàngale nu ñuy waxee ak mag nañu jàngaale nu ñuy jëflante ak mag waaw yow mag itam lañ lay laaye biir mooy yow mi am doom dugal ko muy jàng xam-xam li nga ci bëgg mooy dolli ko diine su yàlla dogalee mu jàng ba nga xam ne ci diine am na fu mu fa àgg boo xam ne man wóor na ma ne man mii ko jur àgguma foofa loola ndam la ci man te it loolee mu am sama tuyaaba la man itam kon kay loola dama ko jéem a jëriñoo waaye du ma ne man maa ko mag ginnaaw maa ko mag nag kon warta mën a xam lu ma xam te pourtant sa doom jee jànge woon médecine de bi mu ñëwee nekk am médecin lu yëngu nga ne ko xoolal ma fii ah, te yaa ko mag waaye nangu nga ne xam-xam bi mu jàng ab xam-xam la pourtant ki jàngi woon diine itam xam-xam bi mu doon jàng moo gën a xóot sax gën a jafe kon bi mu ñëwee def ko ni ngay def sa doom ci jàngi woon médecine lu yëngu ci diine loo xam ne xamule ne wóor diw moo jàngi woon kaay nangam ak nangam lu ci am mu ne la pàppale loolu nangam ak nangam lan ci jàngoon nga ne alhamdulilahi kon mbir ma daal nay lijjanti ko defe naa jëfin wu mel noonu ak xoolin yooyu day daal di doon lu am solo beneen bi ci des mooy nijaayam ji ñuy def aw lay lu mel noonu mën naa am mën naa am nijaay mën naa am keneen koo xam ne dafa dem jàngi moom itam ba ñëw waaye bi mu jàngee ba ñëw lam doon jàng moom jëfewu ko jëfewu gone nekk fii xëy na àggut ci moom sax ci xam-xam waaye di jiima góorgóorlu di jëfe lim xam nag kon kii jëfewul kay wax dëgg yàlla nag du nekk aw lay ci kaw kii jiima góorgóorlu di jëfe kee lañu war a wax ne ko waaw yow mii nga xam ne yow yaay nijaayam te jàngi nga ba ñëw lii muy jëfe nii xam-xam la te nee na mi ngi ci alxuraan sunna lu tax doo ko jëfe kooku lañ ko war a laaj waaye waree su ne ko yow sa njaay bi li ngay def defu ko kon nag li ngay def wéru euh, ñi jàng ba noppi te jëfe wuñ bari na lool suñ leen bëggee def aw lay ci kaw ne mbir mi wérut ndax su wéroon ñu jëfe ko kon dara du wér ndax ñi dëgg moom naka jekk dañ fee nekk kon loolu euh, faaw ñu bàyyi ko xel kan mooy koo xam ne mën nañ koo tudde nitu biddaa loolu ab tomb la boo xam ne rek tomb bu bu xóot la boo xam ne des boo war a jàng des boo war a jàng euh, jàngin boo xam ne wu xóot la waaye li ma ciy wax mooy atte nit ki ne nitu biddaa la dafa war a am étape yu muy jaar ñu door koo atte nit ñi ñetti xaaj lañu nit ñi nga xam ne dañ leen di askane daal ñetti xaaj am na ñoo xam ne dañoo jàng ba xam layu lislaam ak layu sunnaa ngi ci seenu loos waaye ñu lànk di dund ci biddaa di ko défendre di ca bind di ca def lépp ànd ak ne xam nañ ko lu tax parce que dañ ca am yeneen i intérêt kooku benn kuréel beneen kuréel boo xam ne moom jàng na tuuti ba xaw a sori waaye nag àggul ca bëli ci xam-xam tey lënt nekk ci boppam yoo xam ne kuréel bële moo ko ci def mu jàpp ne noonu la mu topp kuréel bële am beneen boo xam ne nag moom jàngul demul dikkul yoonam nekkul ci dara gis ne kii daal rafet na ci moom jot jàpp na ne wërta nekk ci lu bon lu mu nekk daal ca laa nekk lu mu bàyyi ma bàyyi ko lu ma digal ma def lu mu ma tere ma bàyyi ñetti kuréel yooyu ñoo am ñooñu nag kenn ku ci ne dangaa yor sa àtte bopp ki jàng ba nga xam ne xam na alxuraan ak sunna ba teg ko fële di dund leneen kooku moom mooy ki ci gën a danseere ci ci wàllu dundiin xanaa ñaanal ko borom bi tabaraka wa taala gindi ko te génne ko ci loolu rek waaye ki xam ba noppi réer kooku moom musiba mu réy la ndax réer na te dana réeral yu baree bari la kon kooku mooy ki gën a garaaw ci aw askan ak nekkam fa musiba la ndax yàq rek lay def tey it euh, ku sunu borom tabaraka tëkku la Euh, borom bi tabaraka wa taala buy buy melal nit ak ni mu ko terale laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim dafa bind nit ci melokaan yi gën a rafet kon su koy delloo ba di ko nuróole mala kooku musiba la borom bi tabaraka wa taala ku xam ba noppi jëfewut ket ci doomu aadama yi moom la delloo nuróole koog mala euh, comme ni mu ko waxee euh, ca suratul araf ak ni mu ko waxee ci suratul jumaa fenn fu ci nekk leeral na fa nuróol gi masalu alladina xummilu tawrata summa lam yaxmiluha kamasali lximaari yaxmilu asfaara watlu alayhim naba alladi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fa atbaahu alcheytaanu fa kaana min algaawin walaw shina la rafacnaahu biha walakinahu axlada ila alardi wattabaca hawaahu fa masaluhu kamasali alkalbi in taxmil alayhi yalhas aw tatruku yalhas ki nga xam ne borom bi tabaraka wa taala dafa dem ba ne kii mbaam lay nuróol parce que dafa xam ba pare jëfewul tee mu ne kii ab xaj lay nuroon parce dafa xam ba pare jëfewul kon borom bi tabaraka wa taala ni mu teralee doomu aadama laqad karam na bari aadama su demee ba koy nuróolee ba xaj wala mu koy nuróolee mbaam kon lay tax loola am kooku musiba la ci nit kooku mooy ki xam sunna ba noppi teg ko fële di jëfe bi daa yàlla na ci yàlla musal kooku bàkkaaram rëy na te lu bari ci bàkkaaru ñi ko topp moom moo koy gàddu ki xam tuuti ba noppi rek dem topp kooka moom itam amatul aw lay ginnaaw dafa am ay lënt na seeti borom xam-xam ñi dindit ko ay lënt mu dellu ci sunna ki xamul dara topp ci ñooñu nag ma riirandoo rek ñooñu moom ñooy géew bi ñi woote foofu seenub liggéeyukaay ñooñu lañu war a leeralal ñu xam sunna xam alxuraan ndax ñu ëpp ci ñoom suñ ko xamee dañuy bàyyi lañ nekkoon dellusiwaat ci dëgg bis bu seeti ñuy gis ñoo xam ne ñu ngi bàyyi loola di dellusiwaat ci dëgg ki nga xam ne dafa wax ne euh, spécialisation daa jëm ci wàllu banque xëy na ci wàllu finance lay jëm waaye spécialisation ci wàllu banque daanaka xaw la am waaye mën na xam-xam bu bari nag mu am ko ci wàllu banque waaye wàllu finance nag lay jàng muy lépp lu jëm ci wàllu alal nuñ koy organiser ki jàng loolu du caagi ni ci banque dong nag la mën a liggéey mën naa liggéey ci ay société yoo xam ne yuy jëfandikoo xalaal la maanaam lu dagan mën naa liggéey ci ay banques yoo xam ne finance islam yi lay jëfandikoo kon jullit bi day tànn li nga xam ne moo dëppoo ak diineem te bañ tànn loo xam ne dafa juyoo ak diineem euh, loolu ci lañ koy orienté banque classique yi ñu ci bare bari léegi dem nañ ba yëg ne euh, riba bi dafay dàq jullit ñi tax benn ñu ubbi ay fenêtre islamique yoo xam ne finance islamique lañ ciy jëfandikoo am ñoo xam ne ñu ngi jóg sox di sos nag ay banque islamique te defe naa ne réew yu bari autorisé nañ ko léegi tàmbalee ko ca Occident ba ci suñ réew yi ku bëgg a sos banque islamique mën nga koo sos kon foofu ñi jàng yu mel noonu kenn gën leen a yey ci ubbi ay société yoo xam ne lu mel noonu koy tax a jóg soññi jullit yi ñu denc ca seeni alal te ñu maandu nag denc leen ko denc bu baax su ko defee eh, danañ ci mën a liggéey danañ ci mën a ubbi ay millions yoo xam ne jullit yi jaaxle fu ñuy denc seeni xaalis daañu am fu ñu ko denc ndax ki nekk ci sunna mën naa nekk ci am ngir dañuy wax ne waaw waaw waaye li mënta def day mooy fanatisme maanaam mënta fanatique moom fanatique mooy lan mooy imaam bi nga topp bu ab xadis ñëwoon boo xam ne juyoon ak li imaam bi wax nga ne ah man ko saam ngir lii la wax kooku moom mooy fanatique kooku musiba la ki nekk ci ngir te def la borom ngir ma wax ndax borom ngir yi kat la ñu wax bu dee ngëri ahlu sunna yi muy ngërum abu xanifa ngërum malik ngërum shafii ngërum bu ibn hanbal rahimahumullahu jamian kenn ku ci nekk wax nga kàddu goo xam ne lañ cay jële mooy xadis bi bu wéree loola mooy saam ngir bu wérut nekkuma ci kenn ku ne am na loo wax loo xam da ne bu wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee sànni leen samay wax su fekkee yow mi nekk ci njarum imaam ji day sa gis-gis mooy man de waxi imaam ji dama moom lay topp waaye nag saa bu ma demee ci benn masala gis borom xam-xam yi juuyoo ci ma gis xadis bi la wax juuyoo li saa imaam wax dana bàyyi li imaam wax jëli li xadis bi wax ku mel noonu mën naa nekk ci mbir te du ko lor du ko lor loolu moo tax borom xam-xam yu mag da ngay gis ñu doon ay mujtahidoon ba noppi ñu ne ci ngir sàngam la nekk ibnu taymiya mi mi ngi ci ngirum ahmad ibnu hanbal ibnu hajar nawawi euh, albayhaqi ñooñu ñëpp ñu ngi ci ngirum shafii ibnu abdul bar euh, alqaadi iyaad mbooloo mu dul jeex ci borom xam-xam ñu ngi ci ngirum malik waaye ñooñu melokaan woowu lañ yoroon albayhaqi euh, da daan def bu ci dee ab xadis bu wér te fekk li shafii wax yooyoon ak loolu da daan wax ne lii xadis bi wax mooy ngërum Shafii waaye lii mu wax du ngëram ñu ne ko loolu moom ma ne am mu ne leen moo waxoon ne ida saxa alxadisu fa huwa madhabi su xadis ba wéree rek loolaay saam ngër kon nag li waxoon fii juum na xadis baa wér kon xadis baa di ngëram am masala boo xam ne dañ ko cee wax na yow day li nga wax ci masala bi yow bay xaqi wuute naag li Shafii waxoon mu ne ko inna nuxibu shafii walxaqu axabu ilayna minhu mu ne noonu de ku bëgg shafii la waaye nag dëgg dëgg moonu gënal gën yi nag kon kii nit te nekk foofa kooku mën naa askanoo ku baax ka waaye nag saa ku baax ka jooyoo ak sunna nag wala mu juum ci masala nag du continuer ànd ak moom ci njuumte la waaye day wax ne juum na fii man maa ngi ànd ak dëgg kon jazakumullahu xeyran defe naa ne waxtu wi jate na ñu yemale ko foofu wa sallallahu wa sallam ala nabiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain